dugub ci gën e kuura koy dugub ci gën e kuura koy dugub ci gën e kuura noon noonu la ñuy dabee mbëri nag wasalaam waaw laay da loo ziar baay waaw xanaa di kontaan rek di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di julli si yenente bi euh, nee na ku ñeme rek dañu laa dee aas mbooj ñoom per xabbu parce que naa bëgg lii tund jate bi ñun yaane de ku la Olof Njaay ne ku waale yàlla daa fekk sa dëgg dafa tëggul man Pikine laa nekkoon kii Pikine laa nekkoon ñeneen ñu bëri ñeneen ñu bëri caat mu ngi nii ana mu sax ana mu ngi nii Dakar nekkoon xam nga gars yi bëri nañ fi comprendre nga ñoom ñëpp ay boy bana su ma limee damay juum daal kon donc ñu ñëw xeex suñu gox ñun yaakaar naa ni euh, ñu ngi def luñu kém suñu kém si laakata ñu li ñu mën li ñu mën ak li ñu mën yëpp ñu ngi koy def léegi nag autorité yi ñoo si des ngir yàlla rasulillah autorité yi nañuy jàppale parce que tey jii euh, tund jaseer roi des arènes jombu ko man nga ngëma am man moom ku gëmul boppam man gëm sama bop sama objectif moy tund jaseer bi même bu man di sama rak yi ne ci ginnaw dans 2 ans 3 ans kanam di am boy boy yu upp doole fouf da ko ñew bëri upp ñom wolo kon donc li ñi def ni nii defaluñ ko suñu bop ñepp lañ ko defal ci bu xotaan 50 tund jandeer bi yep keur kër Moussa ñu kenn kon donc taw bo gisee euh, ñepp ñu dajalo fi nee ñoo fait la force comprends nga union fait la force moo tax léegi lii tey yi ñu am fi comprends nga laa lii initiative daal dañ koy kontaan bu baax di wax gars yi fi lu ñu jàpp rek doyul ñoom bëri ñu ngi déggoo ñun ak ñoom tout le xanaa comme li ma waxoon sànq rek dool cere yokku ñeex kenn ku ne xam nga si jàmm bokku ndey bokku baay su ko defee dara du xaj suñu biir parce que écrit na ba ci biir nag kenn ko ne commencé fël mu amee coow comprends nga waa koñ bi naa kii la ñi naa kii la ñi naa ko kii la pour loolu ñu éviter ko fa la ñu ñuy waxtaan suñu biir di bokk ndey di bokk baay di weccoonto xel ak xalaat loolu moo ñu war daal mbër yi ñu réeroo naan gaañ jàppale autorité yi jàppale ñu xam nga li ñu bëgg